ذكر والمدد ahlan wa sahlan wa bila adadi dal leen ak jàmm ci naafile yi guddi yi weeru gi ah, tey jii ci guddi gi ñaar fukki ak juróom-ñeent gi naafile gi doon fukki rakka rakka bu ci nekk ngi war ci tari fatiha benn yoon inna anzalnaahu ñaari yoon xul yaa ñaari yoon loolu nag mooy li nga xam ne ni moom mooy naafile ngeen defoon ci guddi gi njëkk ci weeru koor moom ngeen di baamtuwaat ci guddi gi ñaar ak juróom gi ñu fàttaliwaat ko fukki rakka bu ci nekk fatiha inna anzalnaahu yoon xul yaa ayyuhal kaafiruun ñaari yoon jërë ngeen jëf bu suba ak yàmm riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi